mooy sëriñ bi nekk suñu bunt ci sëriñ Touba te loolu li ñu ciy may taw tawféex mooy ñu xam ne dara mënuñu cee may dara lu dul ñu ànd topp ci ginnaawam déggal ko di ko déglu ba noppi bàyyee ko suñ bopp dañu wax ne ab taalibe moom dafay bàyyee boppam sëriñ bi ba pare bàyyee sëriñ bi boppam lu ko sëriñ bi digal rek mu nekk ca te bañ jéema xalaat dara di ca am ay bëgg-bëggi boppam bëgg-bëggi sëñ bi daal doon ay bëgg-bëggam loolu nag ci lañ fas yéenee nekk ñu xam ne nag li ñuy jariñ tey ak ëllëg du nekk njiit li ñuy jariñ mooy nekk ab taalibe ñun nag bëgguñoo nekk dara ci kër Sëriñ Tuubaa lu romb ab taalibe soxla wuñ fi bokk soxla wuñ fi cër soxlawuñ fi dara lii suñu tawféex daal mooy sëriñ bi suñu digganteeg moom leer mu nangul ñu suñu taalibe ba pare jëf di ñuy jëf ngir sëñ Touba mu ñu koy eggaleel ci sëriñ bi loolu nag ñun ñëpp moom lañu war a ànd sax ci dafa am lu sëñ Mbaye Jaxate waxoon dane woon wallaahi ñoo texe ñun gaayam yi ñun gaay yi sëñ Touba yi ñoo fi gënit moo te ñoo sant te foofu suñu jot yu rafetal kuy sant kuy tee ñu sant suñu waaj yi di waa ji fi gën du def lu ko du def lu bon ko seetaan it du wax lu warul tilim jure yi safulug dex fu mu ko jàppee mu set ngir dex a fi jàpp santaare gi seen la kon liy taw féex ci ñun tey ak ëllëg mooy ñu déggal sëriñ bi topp ci ginnaawam te kum ñu joxañ ñu ànd ak moom Cheikh Mouhamad Bachir ñoo ngi lay dénk suñ bopp di la dénk taalibe yi yam ci yaakaar yow yow ci yaakaar lool ngir saw doxeen ndax yow Mbàkke képp koo xamante ne waxuma mu jox la ñaari loxo waaye mu di la xool nga di ko romb muy gis soo jëfin ak soo defin rek ku tege ci saraatu muy sàq nga lay doon kon may ñaan ñun ñi nga xam ne noo aju ci moom ak képp koo xamante ne ab taalibe nga te bokk ci moom yaakaar nu ñaanal ko mu gudd fan te fas yéene roy ci moom ndax Cheikh Mouhamadou Bachir kuy roy ci moom doo xuloo doo werante doo jàppante danga nga nangoo jaamu yàlla danga nga da nangoo jàmm yàlla da nga nangoo liggéey danga nga ko ab tooñ moo xam ñi nga xam ne sëriñ bi da leen a defaroon ñu woo ñi aju ci ñoom ngir dàgg leen waaye yeesal leen waaye jamono bii ko sëñ bi defee nag fi la jotee ndax taalibe yi yàgg nañ ko bëgg sëriñ bi jàpp ko woon waaye boobu daa jotutoon waaye biñ ko bëggee mu jàpp ko daa tombeek mu jot sëkk li Cheikh Mamadou Bassir def bunt la ci mboolem kilifa goo xam ne aju nga ci yoonu murid kon nag Cheikh Mamadou Bassir woote gii nga woote ci jëmmi yàlla ji rek ak jëm ak jëmmi Sëñ Tuubaa ji ñu wuyu si la ko fas yéene laa ci lépp loo digle ñu fas yéene koo def lépp looy tere nag yàlla bu mu fekkoon ñu nekk waaye di wax ne jëmm ju mel ne Cheikh Mamadou Bassir woote lu mel ni da ko du yomb ndax tax du ko yomb mooy du sëriñu kër sëriñub yoon wi la ndax sëriñub kër moom ñëm yi di rek lay lijjanti sëriñub yoon wi nag lu tax ci Sëriñ Tuubaa mu lijjanti ko loolu laa koy sëriñ rek ngay lijjanti ku ko laal doo jóg waaye taalibe yoon wi nag Sëriñ Tuubaa rek koy ñëw lu laal Sëriñ Tuubaa mu jóg kon nag foofu rek lañ fas yéene nekk doon taalibe yoon wi waaye woote bii nga xam ne Cheikh Mamadou Bassir woo na mbokki taalibe yi ginnaaw bi nga xamee ne jaay na léppam jëndee ko taalibe di toggoo ki coono ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa di daj lu ne di dégg lu ne di muñ lu ne ñun ñii nga xam ne si nii nag la ko Sëriñ Tuubaa jaral ba nga xam ne boo déggee kàddu Cheikh Mamadou Bassir mu wax nga yëg ne aalu na daal dañoo laal jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaye jëmmam gi kenn mosut a dégg mu génn di ci tontu ngir lu ko naqari kon kooku jox na lépp Sëriñ Tuubaa mu mel ne kon lu ko waay laal rek jëmmi sëriñ bi nga ko laal mooy waral yenn saa yi ñu laal ko nga dégg ay nit génn leeral leen mooy kanam ndax damay bañ ñuy jaawale Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne dañ koo jox kàddu ak yoonu murid njëkk ñu koy jox mooy kan mooy Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne doomi Cheikh Abdoul Cheikh Abdoul Khadir la soxna Daba bi ko jur di doomi Sëñ Balla Bousso Sëñ Balla Bousso am ngërëmu Sëñ Tuubaa doomi Sëñ Tuubaa yëpp am fuñ ko tegoon foofu la ñu tàmbale mu jox ko Cheikh Sohaïbou bu Mbacké mu jàngal ko tërbiye ko yar ko jaarale ko fi ni jaaral doomi soxna yëpp ñu yéewi ko mu dem sanc ji ay daara na ay bàyyam defe woon yóbbu fa ay dong di leen dundal di leen yar di leen jàngal ba am na ci mbooloo mi ñoo xam ne ñi ngi toog fu sori lañ jugee mën naa ba Basiiru Mbàkke mii nga xam ne doomi Sëñ Abdu sa la jugee ca Tayba Njaay samp fa daara seeti naa ko sëriñ bee ko jàng sëriñ bee ko yar jàngal ba bind kay nag jébbal ko noonu la baree ci doomi soxna yi ñi sant Mbàkke ñi sant Buso ak ñi sant neneen kon jëmm joobu boo ko bëggee xoolee ki nga xam ne kàddu yoon bi la yor rek day gàtt ndax loolu daa yëg jamono Elhadji Bara da ngay xool jàmbaar ji nga xam ne fan jaarale gars yi dañ ko faa jaarale mu door a toog mat li mu doon looloo tax lii mu yor mu man koo yor waaye njëkk muy yor lii suñ ko jaarelu toon fa mu jaar du man a yor lii mu yor fii ci Baxdaad laa jébbaloo ci sëñ Abdou Khadre mu ne ma dama ci sëñ Modou Abdou Khadre wax ko suma bàyyi ne ko ndax ñooy bokk jamono may sant sëñ Modou Abdou Khadre ndax lu bari moo ko def ci man ba bi fi jógee ma jokk ci yow rëccuwuma ci dara te ñii fi nekk ñëpp ñi fi nekkul kuko ci deg dina mer motax li khadim jaañ don wax leral ko ne wulo da nga tan ñen rek ci jewri yi ne leen len ma waxtaan ak yeen ah te waxtaan bom de li ma ci xam li ko sabab moy la sallallahu alaihi wasallam waxone ñun ci khutba bu mag ba ba mi taggo ben ci ndënkaane mi neewon won julit yep ay mbokk lañ kon rawat rawat taalibu Sëriñ serigne yi rawat nañ sa njobotu bop kon liñ ci jublu mooy da nga ñoo bëgg a nas rek bëgg ñoo gën a nasaat ni sëñ tubaat nase mbooloom ba dara mu ngi koo yàq noonu nga bëgg a nase yow it sa wàll bi la ci yàlla jox gën koo nasaat laay wax sa pour ngir ñu gën a xamante ndax ñu ci bari fii xamante nañu bu baax wala ci kanam ñu gën a xamante gën a soppante ndax li ñu boole gën a di mun a dimbalante na ku ci nekk am na loo mën te sa morom moomu te ci àdduna lañ nekk dama guñu àllaaxira kon war nañ di dimbalante fii loolu rek mooy sa yitte ci woote bi nas ñu teg ñu ci yoonu liggéeyal sëriñ Touba. waaye Mbacke sama maam lim ñu bëggaloon mooy lii nga def tey sëriñ tubaa dafa ñëwoon ngir yeesal li fi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bàyyi woon mu doon yërmande tegaat nit ñi ci yoon. sëriñ Moustapha wax na ko jamono ji moo ko laaj kenn xamatul foo jëm repère amatul nit ñi xamatuñu lu ñuy dund kersa amatul sutura amatul xamuñu fan lañu jëm waaye alhamdu wa shukru lillahi ba nu amee ku tedd ki nga xam ni dafa ñëwoon andi l'islam l'islam sans couleur ni race, l'islam sans pays ni peuple, l'islam pour l'humanité tout entière Yermane Ils sont là... moom nous... nanu ñëw sunu référence Des symboles... di koo xamante ne àdduna sépp ñoo ko naw sa doxin rafet na sa philosophie rafet na sa taxawaay rafet na du ci yoonu murid rekk waaye ci yoon yoonu lislaam bi yëpp ak àdduna bi yëpp bon Mbàkke ginnaaw buñ la ñaanalee nga yàgg ci lool te sunu boroom na la kàttanal gën la dëgëral ba naal yi nga xam ne naal nga ko ngir yëkkati taxawal aar yoonu murit sunu borom defaral la kàttan bi sëñ bay jaxat ne na nafiq baaxul na mu mel bokkul ak na mu mel ayam wa day ni ca biir yow ma nekk ca kaw am na kook mën naa ni ci biir yoon wi riir kenn xamul kuy kogam kenn xamul fu mu féetewoo ndax murit gi daa ami charte da ngay nungoo liggéey joxe sa bopp tey siyaare tey jaamu yàlla tey liggéey leneen loo ca def te du xóo ca charte yi nag ak nit nga ko tudd la nga tudd waaye baatu murit bi moom loolu bu la génnee ci ngisal nit bu xasee set ci ngisal lu muy jëf yàllaay tax Serigne Touba nee na ku jëf ngir nit ñi perte nga fa man kaana yasan lil baraya fa xaaibun li anna al wara lam yamliku nafan aw durra kon looy jëf na yàlla tax dalay génne it ci ak rëy yóbbu la ci tawaadoo wala tasaburi muy toroxlu ak wàcce sa bopp génne la ci noonoo doo parparloo ndax sëñ tubaa dafa bëgg ñu bëggante kunu ibadalillahi ya ikhwani bila tahasudin wala xidwaani waxit na ngërëmul yalla ku ko bëgg na bëggal bopam lim bëggal bokam ndax li nga bëggal sa bop boko ko sa mbokk am ngërëmul yalla man xabba lil aqil ladhi yuhib li nafsi raddi an rabb dalay genné ci deng-deng ab murid deng-deng sëñ fallu mo waxone ne sëriñ dañ nan ko nik nako nankutum nako katiw nako tarawlis serigne touba desu ko cof ku ca bëgg jariñu dang ko japp japp gu wër ndax mom ci bopam naxul kenn te fam jëm bam cey jëm ak deggo pass pass la ci jëm ku japp ne naxala cey may day da ngay nax sa bop rek motax da ngay mujju ne mbir yi lum doon fekk du kenn yow dalay génne ci lu amul jariñ yobul ci am jariñ serigne touba ne bo leen di and na ngeen and ak ñii loola na xolate cheikh abdul basir bu leen tayal beekum serigne bo àndee ak mom ci lolu séré nañ ko fi wax nañ ko fi mas naa ko wax ca ca njaañ ma ne Cheikh Abdoul Bachir ñi ko umpale moo ëpp ñu ko xam ci ak dégg ak ko gis dama leen di wax ne léegi-léegi nga dégg ko joxañ baaraam Cheikh Mahmadul Bachir bu dee ci pas-pasub Serigne Touba yi ku mu topp kala fa nga doon la nga ca doon la ca doon diw sëñ tubaa jur baayam diw sëñ tubaa jur baayam Cheikh Abdou Khadir sëñ tubaa mooy way juróom kon ca la bokk ca loolu hmm. kon yow mi di taalibe boo joxar bee sëñ bi wala loo mën a doon jëmee ci moom keneen koo joxar bi na ko fonk naa la it xanaa du sëñ tubaa kon sa intérêt bopp tax wala la la neex waaye bu dee sëñ tubaa tax moom foo joxañee boo wëlbatee rek man nga koo teg ci keneen ku mën a doon hmm. ndax lam ca doon rek la ca doon di ko wax ne jëf ji mu jëf euh, rëy na lool te lu solo la waaye dafa dëppoo rek ak li sëriñ bi radiyallahu anhu doon naan doon ñaan suñu borom naka jekk ci njaboot gi mooy sëñ Tuubaa doon na ñaan suñu borom ne ko na ko may njaboot goo xam ne bu fi jógee jëf ju baax ji mu doon jëf liggéey bi dañ koy wéyal wal tajaalanha ya ilahi saaliha talidu man yaamalu baadi saaliha nag may ñoo xam ne bu ma fi jógee liggéey bi dañ koy wéyal lii ñu fi gaaral ci sëñ Basiiru ci daara yu mu fi taxawal nit ñu mu fi jàngal ñu mu fi defar dëkk yu fi sañc loolu ku xam taxawaay bi muy taxaw ci yoonu murit da ngay wax ne warutoon a mën a ne warutoon a mën a ne su ko defutoon ñëpp danañ xam ne am na ngànt waaye teewut mu taxawal jëf ju rëy ju am solo ji loolu kon dañ ko ci soñ bu baax di wane ne modèle la sëñ Bas modèle la boo xam ne royukaay la ci képp ku kuy dàkk bëggug sëriñ bi euh, lii ñu fi seere ci ay jikkoom it ñi ko xam ñëpp xam nañu ne noonu la mel nit ku baax la nit ku mën joxe cër la nit ku mën sagal nit la nit ku bëri sutura la loolu ñi ko xam ñep xam nañ ko ci mom loolu nak moy jikko nit ku baax moy jikko yi nga xam ne rek Cheikhul Khadim loolu la fi indi won euh Cheikhul Khadim dafa waxon mag ñi rek ne len ñet yi fekk yéen ci sax euh dañ leen di ñee fu leen gisee mu jamalukum ilmun wa sa'yun wa adab falazimuha yunfa ankumul wadab yara yara ki teggin xam-xam ak jafe xam-xam fekk yéen ci sax ku leen gis da leen di ñe loolu lañu xam ci mom Euh, bu ñu ko waxee fii dana neex a seere ndax ñi fi nekk ñëpp xam nañu ko ñuy soññ ñi nga xam ne rek sëriñ bi mooy seen buntu ci Cheikhul Khadim ñu xam ne suñ borom fàttewu leen bi muy wutal nit ñi kilifa am nañu kilifa gu mat kilifa tur bi rek tur bi rek dafa am solo at ak taawunu ala xidmati Cheikhul Khadim euh, mooy di àndaloo liggéey ci liggéey Cheikhul Khadim mu woo leen tey fii ci Daarul Khadim loolu am na lool euh, ak ak méngoo ñaar yooyu kon ñuy ñaan rek lépp lu ñu yëngal ci mbooloo mi ci toolub sëriñ bi suñ borom nang ko Cheikh Khadim mi nga xamne ne ñaanaloon na ñi koy liggéeyal ñep ne suñ borom innal ladhina saarao li khidmati fa diyar wasal jannati waqdi hawaij alladhina damu fi khidmati wa ma ramu ñaanal ñi koy xidmaal ne seeni kër ña ngay dëkk ci digg aljana moy wone ne kenn du leen njëkk dugg kon nañ xamne am nañu kilifa bu mat kilifa sëriñ Basiru amutug jot bu toll ne di tante tante yu toll nii ne ci daara ji di wo mbolo ngir bëgg won nit ñi ne leen ñi sama mbolo la lool du aw doxinam amut doo jot mbooloo mi yàlla teg ci loxoom nag nga xam ne pas-pasu Sëriñ Tuubaa moo leen boole mbooloo moom rek lay fàttali ñaari kàddu genn kàddu gi Cheikh Abdou Lahad baayam baayam moo ko waxoon te kenn nekk sa mbooloo la doon waxal Sëriñ Abdou Lahad dafa wax ni bi mu doonee Serigne Touba Serigne bi bi mu yoree kàddu Serigne Touba gi mën nañ ko boole ak bi Serigne Touba Cheikh Abdou toogee jotaayu Serigne Touba ndax benn mbir de Serigne Lahad dafa def déclaration wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a moomoon kër gi démb yàlla boole maag yéen ngeen daan ñëw di yendoo ak man may ñëw ca tool ya di yendoo ak yéen mm-hmm. ak yéen ñi nga xam ne ak bokk moo ma boole woon ak yéen bu ngeen ak seenu mbokk jotaay bi waxtaan ba lool jot maa ngi leen di jox kaddu gii ngeen def ko ak yóbbal mooy ku ñëwati ci kër gi ci yéen ñooñu te mënoo agsi ci man na nga daan agsee ci man ba nga nar a ñaxtu fàttaliku lañ mujj séq maag yow bu ñaawee nga xam ne ci man la sëriñ Bassirou kaddu googu mën na koo wax donc yi amoon démb am leen barki démb bu ñu demee ba jataay bi xat mënatuñu agsi ci Cheikh Mamadou Bassirou suñu nekkee ci seeni kër jàpp ne sëñ Bass da leen a sàggane wala da leen a fàtte wala da leen fàtte war nañoo bàyyi xel na seenu ñaan a nangu ndax bépp sëriñ boo xam ne boo demee ci këram doo fa fekk ay dàll jërut feet yi waaye ku yor njariñul mbooloo mi nag mbooloo mi fekk si la fi nañu xam ne sëñ Touba dugg ci seenu kër moo tax mënatuñoo agsi waaye bu doon sëñ Bassirou képp bu ñëwee agsi loolu maa ngi koy fàttali sama bokki dongo yi mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mooy taalibe yii nga xam ne ay wëllëre lañu te jokkuwuñ ci kër gi waaye ay wëllëre lañ sëriñ bi woote ñoom ñépp ñu ñëw ku ci mel ni kooku sëriñ baa ngi lay beral sa cant bopp li ci des mooy taalibe boppam yi nga xam ne da leen woo ñu wuy si kenn ku nekk taatan di déglu ngir li nga fiy jële bu ëllëgee nga mën koo jëfandikoo ñu di la xamal nag sëriñ bi jot nañoo waxtaan ak jëwriñ yi ba tënk loo xamante ni bii ku fi jóge bu doxul du ci yow du ci nun ci moom la ku fi jóge te doxul du ci nun ñii du ci yow mii ci moom la ndax lu ci waroon a jot jotal nañ leen ko kenn ku ne sant nan la ña topp ci sa gannaaw nga xam ñan la nga xamal nu ko ba bu ëllëgee bu santaane jógatee ñu xam kuñ jëm ci yow ñaata lañ soxla ci yow bu dee mbooloo la bu dee lu mën a doon loola ñoo ñoom ñëpp yëg nañ ko benn jëwriñ bu fi mën a jóge tey bu ne yëwut loolu amul sëñ Ahmadou wax nañ ne dañ leen jox ay registre ñoom ñëpp ñu takkoo ba kenn ku ne ñu xam yaway kan ak foo bokk wax nañ leen it ne leen kenn ku ci nekk soo amee lu jëm ci sëñ bi na ko jaarale ci sa jëwriñ sa jëwriñ jaarale ko ci ñun. sa melokaan jar na wax jërëjëfe borom Tuuba Sëriñ di, di, di